dégg nga mu ne yaam naka lay jubloo ahadukum kenn seen ilaa jamratin ci xal min naarin ci safara fay jaxalwaa mu nekk ko fii di ci loxoom ku jël jaaru wurus takk ko na lañ wax amaa jigéen may nañ ko mu takk wurus góor gu jël jaaru wurus ko mu ngi mel ni xalu safara la jël dugal ci loxoom ndax jaaru boobu yow nga xiyamati yàlla daf koy sotti safara di ko lakk ca barab ba mu ko doon takk ca barab ba ko doon mu ko doon takk kon yow mi ko takk nu li mel ni safara nga takk lu nga yonantu wax kon ndek góor dafa xaraam ci moom muy takk jaaru boo xam ne wurus lañ koy defaree jaaru boo ne xaalis lañ ko defaree nag dagal na ci góor mu takk ko waaye bu mu ñaar dërëmi yoon te nekk benn jaar mu nekk ñaar bëgg nag mu tax nga jël jaar yu bëri dugal sa loxo bi takk nangam nangam amul benn njëriñ hmm? am naa jaar boo xam ne du wurus du xaalis wala wurus wala wala waaw du wurus du xaalis kooku dañ ko sib comme pëdëm yeeg yooyu weñ dañ ko sib xaraamul nag mais dañ koo sib bu dee wurus la xaraam na bu dee xaalis la bu ëppee ñaar dërëm yoon wala mu ëpp benn jaaro xaraam na bu dee ñaar yoon la benn jaaro la dara nekku si jigéen na mën naa takk wurus mën naa takk xaalis mais du takk pëdëm nag pëdëm tamit dañ ko sib fi góor a jigéen yëpp mooy loo du wurus du jaaro moom si ñëpp dañ ko sib faqii la ñuy wax le rajul ñeel góor gi baax dama zahaba gannaaw mu demee rasulullah yonent yàlla xam nga yonent bi si mën a jaar bi sànni ne naka lay nit di demee fekk xaru safara mu di ko teg si loxoom yonent ko defee benn waay ko benn waay ku wax wala am ñu wax ne ko xus jëlal xaatama ko sa jaaro intafex jariñu bii ci moom yonent simmi ne ko sànni dem gaa yi ne ko ah jëlaatal jaaro bi nga jariñu ji hmm. xoolal loolu rek moo tax am na ñoo xam ni ku dugg ñu war a dugal lu yonent sànni looy waxee waa ji jëlal ko xaala hmm. waa ji ne laa déedéet wallaahi maa ngi gën ci yàlla laa axusu du ko jël abadan ba faw waqat taraxahu te fekk sànni na ko rasulullahi yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam waa ji ne lu yonent sànni du ko jël hmm. xam nga waa ji yonentu aaya na ko aaya bu métti bu xaw a tar hmm. wax wax joo xam ne nii dëgër na ba pare sànni jaaro bi dem mais waa ji taxut moom xolam am lu jàpp ba mu fetteer lu ne ma kii kii li ma aay nii dafa métti dama jël jaaram yóbbu daf ne mukk yonentu sànni na ko du ma ko jël na ko du ma ko du ko jël nga déggee si ne léeg-léegi nag nga nekk ci yoon bu baax wala boog ñu ah digal lu baax ay saay saay ñëw bëgg laa yàqal hmm. wala seytaane ñëw bëgg laa jax jaxal seytaane mën naa jaar sax si ku baax xam nga ne ñii ñu baax lañ te jamono yonent bi saxaaba yëpp ñu baax lañ hmm. waaye léegi-léegi seytaane jaar fa dugg seen biir bu leen yaakaar ne alamu saxaaba yi alamul malaaka malaayikatu de alamu saxaaba yi du alamu malaaka de ay nit la ñëw dañ naan xuloo di meroo di jàppalante dara di bëggante ah di am ay problème ak yëpp mais yonentu moo doon loon benn la ba duñ féewaloo suñ juumee it alquran na leen jubbanti waaye comme nit ñi rek de comme nit ñi rek li ñuy dundee rek noonu la ñu dundee waaye nag bu leen alxuraan jubbantee rek ñu jubbanti ko ñoom sens boobu la ñu amoon rawaawu muslim kon jaaroo wurusan woowu dafa xaraam waaye yonentu ba mu gisee ko takk daf ko aaye aaye bi sax si dooleem la ko def kon tere lu bon lu war la attaasi adil juróom-ñeenteel ba ñu ngi ko jëlee aan abi ci abu saïd alxasan albasri من أن عائز نك عائز بن عمرو رضي الله عنه دخل دقنا على عبيد الله بن زياد شو عبيد الله بن زياد عائز بن عمرو صحابة بينتر عبيد الله بن زياد جيد لون بور لون فقال عايز نكو اي بني اي أي سما شندوم اني نك من سمعت دغنا رسول الله ينتي الله بي يقول مي وخ ما ان شر رعائي naka ki gën a xees ci njiit yi alxutamatu mooy ñay dammati seen xeet wala alxutama mooy tooñkat yay dammati ñay jiite yaa ngi dégg de xaayis xaayis dafa dugg ci Ubaydullah bu Ziyaad ne ko yow sama doom kon xam nga moo ko mag foofu teg moo ko ëpp xam-xam te teg si saaba bi la dégg naa yonent bi naan ñi gën a bon ci njiit yi mooy ñi nga xam ne dañuy lor ñeen jiite di leen dammati maanaam yërëmuñ leen dañ leen teg lu métti loolu mooy xottamatu yi ku jiite jiite bu métti fa yaaka moytul an takkoon a nga bokk minum si ñoom ñu ko moytul bokk si ñoom xool ko ma bay daay bun diyaat toon hmm. dama la ñàkk teggin yàgg na fi hmm. booy booy digal lu baax léeg-léeg wax la wax ñu ñàkk tey jii bu mu la déranger nga gis nga saxaaba ak yi di digal lu baax ñu koy ñàkkee xorma lan la wax yow sama doom xoolal tur bu rafet mu ko woy ay bu nay ya maanaam ku ko yërëm dégg naa yonent bi waxut gis nett na mi ne dégg naa yonent bi ne njiit yi gën a bon ci njiit yi mooy ñooy lor seen xeet ñoom ñooy njiit yi gën a xées mm-hmm. moo tusee bokk fa qaala Ubaydullaah wax law ñëw ku ne ko ijlis toogal fële waay fële ma anta naka yow min nu xaalati asaabi Muhammadin yaa ngi bokk ci mbaritu saabaayi Muhammadin yaa ngi jéem wax waaw waaye jugal fële waay yow nga bokk ci mbaritu saaba yi yow taxul ñuy wax saaba de mbarit yi nga bokk yaa ngi dégg fu mu ko toog ku yem ni saxaaba bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàkkaarloo yow digal lu baax ده انا كنت فله يوسم بريت ساعه يرغبو waaye tamit loo lewet lewet dafa am ñoo xam ne foo mu tontu leen moo tax tontante gars dañoo wax ne baaxut waaye bu ëppee mais léegi-léegi yenn tont yi mënu ñàkk ndax yar lay doon mu ne ko Idris toogal fay na ma anta naka yow min nu xaalite ashaabi muhammadin yaa ngi bokk ci mbalitu sahabaay muhammad xoolal muhammad sax la wax ñàkk teggin sallallahu alayhi wa sallam فقال ها آه، اذنكم وهل كان نحن نكن لهم يل النخاله بلد اسك صحابي ام من انما كان نك نكن النخاله بلد بعضهم سن غناو وفي غيرهم اكيد نيو مبارك كي بوكاي خول خول كو غناو صحابي خول كو سنيو صحابي واني نيب تانيف لا ام مبارك كون دكي الصحابه كلهم عدول صحابه ياكو نيك واخ عايز لون لا غير صحابه ني نيب ني مان نك حديث بي لول من كو تي مسلم نعم. بو خينو wax nga waxi saxaaba saxaaba yi ñoom ñëpp ñu mat lañ moo tax mu ne ko ndax saxaaba yi amoon nañ mbalit mbalit kay gannaaw saxaaba yi nga koy gis wala si ñu dul saxaaba yi waaye ñoom moom amuñ mbalit amuñ ñu tuuti daal xam nga mbalit mooy boo dara yi des noonu xanaa amuñ ngay nga xam dañ koy tuuri sànni ko hmm? noonu la ko tuddee layit layit noonu la ko tuddee waaw léegi kii ndax mën ngaa foor ba yegg ci maqaama ayis wax leen ma <coughs> boo jàppee ne jot nga xaalis de règle yow bu yow ñu pëltere ndax mënoo foor a foor loo doon doon waliyu mhm. ba tolloog saxaab mais xoolal luñ ko tontu kon yow it bañ ñu wax la yenn wax yi bu mu la tey digal lu baax te tere lu bon te booy digal lu baax tere lu bon dañu la saboote nuñ la dammatee am ñoo xam ne moom nuñ nuñ la déstabiliser rek ba yow dootoo waxati do ñëmé wax loolu la ñi wut mais bu ma té wax té gis nga tontu bi tontu waaji tontu bu saf la rawu muslim muslim mo solo hadith bu العاشر العاشر حديث فكيل بي من إيه؟ ان النبي ني جيري سنت بي ان ان حذيفه ني جيري حذيفه رضي الله عنه قال يلا جرب ان النبي مجيري سنت بي صلى الله عليه وسلم قال yonent ne wallazi maa ngi gën si nga xam nafsi sama bakkan bee di mu ngi ci loxo bi la taamurunna da ngeen digle bil maaruf ci lu baax wala tanhawunna da ngeen tere anil munkari ci lu bon aw lu yusiku na wala dana xaw allah yàlla an yebaasa mu yebal aleykum seen kaw iqaaban mbugal minhu bu jugee ci moom su ma tad'uun mu topp ngeen ñaan ko fala yustajaabu du nangul ñaan la ko ngeen le hadis bii ne yonent ne maa ngi gën si nga xam sama bakkan ci loxo nga nekk bakkan yépp bi ci gën mooy bakkan yonent moo tax mu tudd bakkanam kon gën gi for ngi gën ci mi muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uh-huh. ne dee leen da ngeen di digle lu baax di tere lu bon wala yàlla wàccee seen kaw mbugal moo xam ne lay mat su ngeen ko leen kon ne ba digle lu baax tere lu bon rek mbugal matale te ñaan kon bu ñu demee ba digluwuñ lu baax terewuñ lu bon mbugal wàcc matale ñëpp te ñaan du ci man dara parce que yéen lu baax di tere lu bon aw la yusikana a dana xaw allahu yàlla boo waxee yàlla dana xaw rek mooy dana ko def ak yebansa mu yebal aleykum ci ne xaaban mbugal minu bu jugee ci moom su ma tëdd onu topp ngeen ñaan ko falaa yustajaabu duñ nangul ñaan lakum ñaan la yéen a ngi dégg ñun di ñun dansé ndax xel bi saa yu ñu sàgganee point bi mooy di lu baax teral lu bon ñu ngi ci musiba te musiba bu ñëwee yaa rabbi du si du si musal li rawaa soo nag at-Tirmisi wa qaala mu ne xadis xadis la xasanun bu rafet xadis yi ci topp daanaka ñaari xadis la rek daanaka xadis mooy baamu ko baamuwaat moo tax bu ñu firee benn bi rek yi des dañ koy gaawat alhaadi a xadis fukk ak beneen bi xanaa bi Saïd al jël nañ ci Abu Saïd al radiyallahu anhu na ko yàlla gërëm ani nabi mu jëlee si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi moom musal ma dorog musal qaala wax na moom yonent ne afdalul jihaad yi jihaad bi gën kalimatu adlin mooy baata mandu inda sultaanin ci kanam buur jaayirin bu jeng jihaad bi ci gën mooy nga jàkkaarloo buur bu jeng wax ko baatu dëgg wax ju maandu kon dëkk buur dañ koy wax dëgg waaye xam nga buur bu jeng boo ko waxee dëgg am nga problème moo tax loolu jihaad la kon ñeenti mbir mu am buur bu màndu nga wax ko baat bu dëgg baat bu màndu kooku danger nekku ci dafa lay gën a fonk rek loolu ta baax na waaye du jihaat buur bu màndu nga wax ko baat ab caaxaan lu danger ngoogu parce que mën naa dem ba niru ne li ngay wax dëgg la fekk du dëgg nga jaxase ko mu def erreur parce que nit lu mat mat mat mat mat am na yenn wax yoo koy wax mën na ko du dugal si musiba kon buur bu maandu bu ko kenn wax waxi caaxaan loolu danger la benn buur bi mere la xam ne yow saay-saay nga wala mu yaakaar li nga wax dëgg la mu far fa juum tarxiis buur bu dëng nga wax ko baat bu dëng kooku kooku moo gën a xiis lépp mooy bi gën a bon buur bu dëng nga di ko gën a jey si méngatéem muy muy def musiba rek ñeenteel mooy buur bu dëng nga wax ko baat bu dëgg baatab dëgg baat bu màndu yonent ne loolu mooy jihaad bi gën kon ndeke buur dañoo war di wax ak moom te séntu lore ya nag waaw bu dee yàlla may na la pouvoir boobu rawaasoo nag Abu Daawud ak Tirmisi wa qaala mu ne xadiisu xadiisu xasan bu rafet waaye waxuñ la nga xeex ak moom ne dégg nga الثاني عشر عدد فكر نارين عن أبي عبد الله جلنا انتباه عبد الله تاريخ بن شهاب البجلي الأحمسي radiyallaahu anhu yal gërëm mu ne am na rajulan nag ab góor sa ala laaj na annabi yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam waqat wadaata teg na rijlawu tànkam fil xar ci sa dëgal ba dëgal mooy boo waree gërëm fi ngay dugal sa tànk loolu mooy xar wala nga war fas ñoom am na fu ñu laan def fu ñuy dugal seen tànk waaye yaa ngi war war waayam dugal tànkam ca dëgal ba laaj yonent bi ayul jihaad yi ban jihaad afdalu moo gën mu mel ni yonentu ay yàgg ay rajo demal si xare sàngam ak nangam xaal yonentu ne ko kalimatu xaqin baatab dëgg inda sultaanin kanam buur jaayirin bu jeng mooy jihaad bi gën loolu jihaad dëgg la de rawaa na ko an na saa yi biis naa din ci wér waaye saxiin bu wér alxarsu bi xëy nin ci xëy mojamatin guñ tomb gi maftuwaatin buñ fataa gi su ma raa in topp raa saakinatin bu sukkoon su ma zaayin topp zaay woo moom rikaa bu kawril jamali mooy rikaab mooy fu ñuy dugal tànk mooy dëggalu tegab gëlëm xam nga gëlëm teg bi mooy da ngay teg ci gannaaw pour toog ci daa am nag looy wàccee suuf di fa dugal sa tànk loolu mooy rikaab bi loolu mooy xas in kaan isa kaana bu nekkee loolu min jin jin ci der aw xase wala bant bu dee nga def sa tànk der dañ ko defaree wala bant waqila am nañu ne laa yaxtasu du jagoo bi jin din ci der bant fi ngay dugal sa tànk boo waree war waay wi waree gëlëm gi ba pare fi ngay dugal sa tànk loolu daal mooy mooy xartu ba léeg-léegi nag arab ne leen ilzam xarsa fulaanin mooy taqool ak moom bu ko bu ko sori kon dëgg buur dañ ko war di wax dëgg yaa ngi dëgg li am léegi nag naka la la yàlla defee borom daraja may la doole may la mbooloo buur du ñëw si yow sax pour sàkku dara di def musiba te mënoo ko ko wax xam nga yaa ngi si réel de hmm? yaa moo tax ma la bu la yàlla mayee daraja am nga problème <laughs> parce que il faut wax buri dëgg way laa nga am bakkaar hmm? eh, kon buur dañ koy wax dëgg hmm? dañ ko war di wax dëgg waaye nekkul ku ñu war a raay rek bu leen yaakaar ne topp buur mooy nga di ko raay lu mu def baax na bu dañ ko dimbal dañ ko encouragé bu nekkee ci waaye bu nekkee ci musiba nag moom wala boog ngeen ragal mu def musiba wax leen ko dëgg ju leer nañ dëgg joo xam ne mën na leen sax mere ndax bu fekkoon ne mënu leen si mere duñ ko tuddee jihaar waaye lu tax ñu tuddee ko jaar mooy dëgg dëgg boo xam ne buur mën na fa jaar si di fexel dañuy wax dañ ko war a wax waaye nag loolu am nañu ko war a wax buur ma ñi nga xam ne yegg nañ ci maqaama fa bi lisaan yi comme kii dafa diine yu mag yi mhm. ak borom daraja yi borom bolo yi ñi xam ne buur day am si ñoom soxla waaye raay rek raay rek raay rek ah affaire am na lu ci raay asaali sa asra hadis fukk ak ñetteel an ibnu masud jël nañ ci ibnu masud radiyallahu anhu ko yàlla gërëm qaala mu ne qaala wax na rasulullah yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam inna awala ma daqala lu njëkk a dugal a naqsu ak wàññeeku ala bani israila ci banu israila annoo ne moom kaana nekkoon arajulu góor yalqaa di dajeeg arajula góor fa yaqul mu naan ko yaa haada yow kii ittaqillaha ragal yàlla wa daa bàyyil maa tasnaw li ngay def fay noo nag moom laa yaxin du dagan lakka ñeel la su ma yel xaaw topp mu dajeeg moom mi nel sa suba sa woo te fekk moom ala xaal yi ma ngi ci xaal ba mu meloon démb falaa yem noow du ko tere a ñàkk soppeeku googu anee ko du mu nekk akiloo di lekk ak moom wa chéri boobu di naan ak moom wa qaani doowu di toog moom li njëkk wàññi banu israila ba yàlla xarak leen mooy daan am ñoo xam ne nii dañ laan dajeeg saay-saay ne ko diw ragalal yàlla bàyyi li ngay def li ngay def daganut am nga kon ñu nga waaraate waaye gars yi duñ soppeeku saay saay bi du soppeeku du du bàyyi la noonu def bu subaa mu ñëw fekk ko ci la noonu def su tee mu toog ak moom di lekk moom di naan moom te kàccoor la kàccoor dagalul nga toog nga toog ak moom maam ñoom dañuy aaye lu bon ba pare gaa yi bàyyi lu bon yi ñu continuer di fréquenter ñu bon ñi xoolal la ci juddoo falammaa fa'alu ñu defee zaalika loolu di toog ak ñu bon ñi dara ba dóor na allahu yàlla xuluba baadim xolu ñenn ñi bi baax di si yàlla nërul ñoom ñoom ñu bokk xol yore xolum saay-saay ndeke kon wàllaate am na lii moo tax islam aaya la nga bañ a toog ak saay saay gis nga baax di wàllee noonu la bon di wàlle baax fu ñu wàlle mooy jàng ne dana mbooloo mu toog di tudd yàlla ni toog ak ñoom yàlla jéggal leen malaaka bi ne yàlla diw bokku ci intérêt ma ko fa wala soxlaam yàlla ne foom xaw mu laa yasqa bihim jalisun dañ laa wàllu mbaax bañ texe rek la wàllu texe kon nekk wàllaate ci mbaalu mbaax ci baax am na defoo lu baax de dangaa toog ñu baax rek yàlla wàll ñu wàll la nga far baax xam nga walaatee boobu waaye walaate ci mbon am na mooy xaritoo ku bon xam nga nit léeg-léeg mu toogaa man kenn mënu soppi booy nekk ku bon booy soppeeku doo ko yëg ni xolam mel lay sa xol di mujj mel xamul tax yaa toog moom di lekk moom di naan moom xaritoo ak moom yàlla def jox la xolam ba loolu mooy daraba laahu quluuba ba'din bi ba'din te pourtant waxul la dara sax waxul la defut waaye nek gi nga nekk moom rek moo la bon loo kon yéen a ngi gën a dégg kon li borom lax bi wax wala yaxilu lahu soxbatu faasixin wala mu jaala sa turu ndax lan ndax booy toog saay saay bu yàggee nga mel ni saay saay ba waaw hmm? ah, léeg-léeg na nga dégg naa man pourtant man pourtant man ay ay ay ay tuxkati yàmbaare laay toogal te pourtant mosuma tux cigarette waaye du julli ko laajee da julli ma noo julli moom du koy def waaye wàll la bu yàgg wala lañ la bu yàgg yàqu nga bu yàgg yow la ngay defee gën a bon ah non gars yi ñu wax mais pourtant man ay tukkati yàmbaare lay lay fréquenté booy tama <laughs> damay tukk boo koy laaj léegi tey ngir mu am xol nga xol ba yëpp yàqu na wàll lañ mooy xol bu ñemee yàlla lañ lay wàll bon gi nekk si ñoom bañ fettir loolu lañ lay wàll kon su ko defee ndeke toog ak ku bon baaxut ndeke fréquenté ku bon daf lay tax a bon lii nag du danger la lii ngeen ci jàngee ne bu ngeen gisee ci xeet ci jamono bii nit ñi nekk ci lu bon ci lu naqadi yàlla suñu wootee nga teewlu leen soo paree di leen tagg sax far di nekk ak ñoom di jëflante ak ñoom accepté leen comme nit ñu baax ba yaa dee nga mel ni ñoom kon moytu leen rawatina ñuy nax nit ñi ci wàllu diir mm-hmm. soxna daan wax ne may tëgg ko way ñu may jox xaalis may lekk xam nga dafa xaraam mhm. moo ma gënal may lekk ci diine kon ñi nga xam dañu woote ci turu diine fekk xaalis rek la ñuy wut mhm. di sos di nar di yu dul dëgg wax ci xam-xam te jànguñ xamuñ mhm. war a noppi noppiwuñ hmm? ñooñu bu fekkee yow yaa ngi leen fréquente di dem seen daayira bu ñu wootee gàmm nga fekk si leen boo toogee tagg leen te wóor na ne la ñuy wax ak lañuy def baaxut wóor na ne maqaama bañ toogee di woote ci lislaam wuñ ko ndax jànguñ xamuñ bàyyi moom daan na ñu noppi mm-hmm. jànguñ noppiwuñ mm-hmm. loolu la bàyyi moom bëri taal la bàyyi xam wala bàyyi daa wax ne sëriñ si dañ jàng mm-hmm. léegi nag yaa gis ñoo xam ne ñooy taalibe ba sax du ñoom ci taalibe bàyyi ñu doon bàyyi léegi te jànguñ noppiwut bàyyi dana dund dexaaye dara jógee fi kooku di nekk xalifaam maanaam sëriñ bi nga wax ne moom nga wut moom nga nekk ci yoonam mm-hmm. yow ni nga mel daf ko critiqué ne ku mel nii bu leen ko topp ñu jógee fi nga ne yow la joxañ naka lay dundee bu leen topp ku mel nii di fi samp ku mel noonu ne topp leen ko mm-hmm. xam nga rek dafa bëri nag léegi mm-hmm. waaw waaye nga sëriñ nañ jàng wala ñu noppi kon ku jàngut noppi waxal ci li nga xam li nga xamul ne xaw jeex na léegi boo ne déedéet mën nañu bañ jàng tamit duñu fekk yàlla xamal ñu bàyyi na jàngoo tari fen rek yaa ngi dégg sa branche ne bàyyi na jàngoo tari mu ne fen rek <laughs> loolu ko yow jàngoo bàyyi na nga ne ngay tari bàyyi na fen nga nekk rek kooku xam nga ne yoonam léegi nag ñu mel noonu nag boo leen jëlee encouragé leen ndax xaalis bi ñu am favoriser leen ndax dañu ngi joxe addiya ñoo fi mën ci pay fi mën euh, kon ne affaire bi soppi leen ko commerce bi hmm. affaire hmm. bi commerce bi waaye yéen bu ñu laajee addiya ñooy gën a bëri waaw hmm. ah, eh, kon kay affaire bi léegi soppi leen ko daje daje am xaalis léegi rek gis nga ñooñu kuy toog ak ñoom rek yaa ngi mel ni ñoom moo tax war nañoo xoolaat léegi surtout diine ci ay fenkat international ñooy ñëw sol mbubu sëriñ dinaat ci diine ba pare nag seen xaalis tax ak mbooloo mi nga xam ni ci tappale lañ ko amee tax nit ñi di di rafetlu lañ nekk di leen encouragé di joxe sax exemple ci ñoom te wallaay benn exemple nekku ci ñoom sëriñ bañ topp sax daf leen far léegi loolu dafay tax bu yàggee xol yëpp niroo mbooloo yu mel ni ñoom ñëpp nekk ay commerçant rek ay ay commerçant commerçant rek business rek ci diine ñoo ñu dañ leen te bu ñu wootee waroo dem waroo faa teew waroo faa toog ndax toog ak kàccoor day tax nga mel ni moom yaa ngi dégg moom du wóor su ma xaal toog mu wax loolu ne rëbb nañ ëllëgën yi nga xam ne kafaroo wedd nañ min israel ci banu israel ala lisaani daawuda ci làmm ñi daawuda waaye sam na Mariam ak làmb ñaa sam na Mariam ñii ay yoon ci yàlla lañ kuñ rëbb yàlla la rëbb moo tax moytul ku baax rëbb la hmm. zaari kuréel bi maa xasaw sawabtu lañ mooy wakaaloo ñu nekk yàq doon di jàggat lu tax mu ne kaanoo nekkoon nañ laayta naaxaw na duñ tere an mun këriñ ci lu bon faalu def nañ ko lu tax terewul lu bon pourtant ñoom hmm. di ànd ak bon ñi yàlla jàppee leen ku terewul la bi sa bon na maa kaanoo lañ nekkoon yafaral doon ko def mooy toog ñu bon ñi lañ def xam nga tere nañ hmm. xadis bi war na tere nañ waaye dañoo continuer di fréquenté ñoom yàlla xalak leen tara dana gis kasiran minum kasiran ñu bëri minus ñoom ya tawaloo na ñu ngay méngoo alladina ñi nga xam ne kafaru wedd ne gis ne ñu bëri si ñoom ñi xaritoog ñu bon ni la bi sa bon na maa xaddama la gisal na ko loolu ñu leen am fusum seen bopp ba ci faasi xonu bis topp an saxitullahu alayhim yàlla mere na leen wa bi azabum xaalidun dañuy sax ci baax bugal walaw kaanu yuminuuna billahi wa nabi buñ gëmoon yàlla yonent bi wa maa unzila ilayhi ak lañ wàccee ci ñoom ma taxasuhum awliya duñ leen jàpp ñuy xarit walakin na te seen minum fasikon ñu ci ñoom kàccoor dañ kon yaa ngi dégg de gis boo gëmee ku baax mais doo jël ay saa saay def leen ñuy xarit nag di leen fréquenté dem seen ndaje yi seen mbootaay seen nangam yi bal sax di leen tàgg te xam nga ne nekkuñ ci dara gëmoo rek waaw ah, gëmoo ne gis nga dinañ jàng ci hadis yi ngeen bàyyi di topp ay nit rek te kër seen kanam dinañ dellu ci téere yi ci nusuus yi ngeen xam ñu nekk si dëgg ak ñooy jub dëgg xam ko ku ci nekk nga xam ko waaye nag bu jël nit def ko muy dëgg ndax ku baax du nangoo fréquente ñu bon ñi loolu ñu baax ñu loolu la ñu wax waaw bu fekkee ne maslaa lañ bëgg ni ñu ak ñëpp rek nañ maslaa ak ñëpp rek ah yàggee kay koy daan wax jaratu ko hmm? <laughs> masla masla ba ci yàq dina ñu ne nañu masla hmm. te buñ la bëggee yàqal doo masla ku ci bëggoon a rey ka wala ñu bëgg rey sa doom moo amatul maslax hmm. buñ bëggee rey rox yi nag sànq nit ñi ci diine foofu maslax amatut hmm. su ma xaal topp tu wax kallaa déedéet gëmu leen de du noonu de wallahi maa ngi gën ci yàlla la taamurun na da ngeen digle bil maaruf bi ci lu baax wala tanawun na da ngeen teraani munkari ci lu bon wala taaxusun na da ngeen téye hmm. alaa yeddi zalimi ci loxo tooñ kan bi ne ko bàyyil tooñ ولا تأكرنه دين كوين هل الحق تدق أترا أقوين ولا تقصرنه دين كتج هل الحق تدق قصرا أكتج أو لا يدربن ولدنا دور الله يالا بكلو ببعدكم تقولوا ينين سين هلا بعد سين ثم لا يل علن ثم لا يل عننكم كف دالين رب كما لعنهم كم من ربنا كما لعنهم يجون واحد يجون تانجي يجون تلمك نكو ينكلم بعض wallaahi balaa ngeen a baax ngeen digal nit lu baax tere lu bon kii tooñ ngeen téye ci loxoom ne ko bàyyil tooñ moo xam buur la moo xam baadool moo xam dafay woote ak kilifa dafay nangam yónni daf na ngeen téye ci loxoom na ngeen ko forcer ba mu tourné jàpp ci dëgg nangeen ko tëj ci dëgg maanaam na ngeen tëj bunt caaxaan yi muy jaare yépp loolu mooy tëj ko ci dëgg weñ ko mooy eh, waaw mooy kon affaire bi waru yomb te nag nuunu tawkit la def nuunu tawkit mooy wax ju dëgër te nuunu tawkit saqila gi la jël bu am sadda ba wax ju gën a dëgër la wax wala tatirunnahu da ngeen ko weñ ala xàq ci dëgg atran ak weñ da ngeen leen forcé ñu tourné jàpp ci dëgg wala taqsurunnahu da ngeen ko tëj alal xàq ci dëgg xasran ak tëj kii tooñ faw ngeen tënk ko ba du mën a tooñati wala yàlla jël seen xolu tooñkat yi def ko seen xol bi ngeen niroo mu rëbb leen comme ni mu rëbbee tooñkat moo tax billaa yàlla may la daraja nga mën a lu baax teral lu bon defoo ko nag rawatina di encourage ñi nekk ci musiba inna lillahi wa inna ilayhi rajiun nga ko rawaatoon وقال من حديث حديث الحسن بن رفعت هذا لي لفظ ابو داود مو لفظ بات ابو داود ولفظ تلميذي بات تلميذي مو قال وانا رسول الله انت رسول الله لما وقعت بم تبع بنو اسرائيل بنو اسرائيل في المعاصي تمو يالا كون اي جول لا نيون صح ناتون ترنا لين علماء سن بروم خم خم فلم ينتهوا بايون fa jaalusahum ñuy toog ñoom fi majaalisim seen jotaay wa waakiluhum ñuy lekkante ak ñoom wa shaarabuhum ñuy naanante moom fa ñuy naanante ak fa daraba mu dóor allah yàlla xulubu baadim xolu ñenn ñi bi baax si ñenn ñu wala anuum mu rëbb leen ñoom ñëpp ala lisaani daawuda ci làmmuñu daawuda wa Iisaa ibnu Maryam ak Iisaa ibnu Maryam zaalika loolu bi ma asaw sabab su lañ mooy ñoom ñëpp wa kaanoo ñu nekk yaxta doon di jàggati فجلس متوك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يكون متكئا عند سكون فمن نتي الحديث كنت يكون مجي فقال من الله غمولن والذي ما نجي كي خم نفسي سمو بكن بيدي من سي لخم بلا نغينا غم حتى تأتروهم باتانген وين لين على الحق تدق deug أقوين تأتروهم ويتعطفوهم تأتيروهم موي تعطفوهم ngeen tourner len wala taqsurunnahu moy la foo ngeen fexe ba gars yi duñ mën a defati bon xeex mhm. ak ñoom tourné kon ndek affaire bi du laamisoo ma ne xool leen saay-saay yi nga xam dañuy commerce ci diine mhm. ba ñuy maslaa ak ñoom lan la leen wàññ ñoom stratégie Musaylimatul Kazaab lañu jël xam nga Musaylimatul Kazaab lu ñu def mhm. bëgg xaritoo ak yonent tey woote ne yonent la naan ko léegi suuf si mu nga jógee si musalimatu yonentu yàlla bi jëm si Muhammad yonentu yàlla bi mu ne gëm na yonente bi hmm. da ko léegi suuf si ñaari xaaj la genn wàll gi yàgg moom genn wàll gi moom maanaam nañ laa mission négocier hmm. ndaxante yonentu na ko yonentu xam gis gis nga leneen wala yonentu du caaxaan ci dëgg min Muhammad rasulullah ila musalimatul kazzab hmm. mu jógee si Muhammad yonentu yàlla jëm si musalimatul fenkat bi fen ku ku ku ku mën a mën a mën a fen ki kazzab la ko tuddee ne ko suuf si yàllaa ko moom moo koy jox ku ko neex mais gis nga yonantu bu noyoon fay lay nekk moom it bu ñëwee toog si kanam yonantu jaral na ko bësal ko tànk yi ne mooy mooy yonantu bu mag bi yooyu yëpp dana ko ko jaral ne moom nag bu ñëwee ci fee ci ruqam ya jël gaayam yi xiir leen ci moom ne la yéen waa gox bi yéen ku ngeen topp ku dul man rek safara ngeen jël bu pare nag di nar rek yonantu dafa waa ne ci dara léegi nag boo fekkee saay saay boo xam ni xol bu mel noonu la yore ne leen da nga maslaa ak moom day ñëw boo boo amee confiance woo la nga dem mu naax sa kanam ñëpp di dégg moo woote lu bonam di sa kanam ñëpp di dégg wala mu junj ko gars yi ñu xooy yaa ngi koy dëgëral yooyu loo bëgg mu ñëw mën na laa tagg mun na laa yëkkati waaye na nga yokk business am rek mu ne loolu commerce si jëlee la waaye du woote du daawa kon ñu bon yi dañ leen war a beru